salaamaaleykum ko internet Leewtoo TV maa ngi leen di nuyu fii ma leen daan nuyoo ci Leewtoo TV am mbégte nag tey dalal koo xamante ne nii kenn du ko laajte ci làmb ndax bu ma mën naa dara ci làmb ci loxoom laa jaar tey jii ba tey ma mën a wax ci làmb tey ba nit ñi mën maa bàyyi xel ci làmb muy Alaaji Buur Géwël xam naa damay bàyyi mu nuyoo ak internet Leewtoo TV bu ko defee ñu xuus jàll ci émission bi nga xamante ni tey moom laa dalal fii buur maa ngi lay ziar. jërëjëf Adja Nafi ginnaaw bu ñu santee yàlla. julliwaat ci yoon tam bu tedd bi ñu ngi amaat mbégte eh, jàkkaarloog yow yow suñu jàkkaarloog yow mbégte la rawat na nag ci Leewtoo TV nga xamante ni suñu kër la eh, ndaxte bu nee suñu kër la bu nee Pape Thialis di jàmbaar di doomu réew mi yaakaar naa ni am lu mu samp ci réew mi te Leewtoo TV tam ku ne gis ni yoonam bi muy dox yoon la woo xamante ni macha allah yoon wu set la yow mi ñu ko jox nag eh, nga xam làmb parce que bu nee gune gu dëkk Fass yaroo Fass màgge Fass fekke Mbaye Guèye mu ngemb génn romb la fekke Moustapha Guèye mu ngemb romb la fekke Ibrahima mbay mu ngemb romb la fekke Alsaan Jaxate nga xamante ni li naan sa kër la xewe mhm. loolu lépp nga nekk doomu Fass bi ngay ñëw di jaar ci sama loxo mhm. fekk na nga xam làmb mhm. fekk na nga xam lu baree bari kon nag yaakaar naa ni e, liggéey rek moo wóor te saa bu nekk ak bis bu nekk yaa ngi ci kon nag rawal maa ngi lay déglu nag foo kut ku ma këpp nga fay kooku mooy alaaji buur nga dégg loolu mu wax noonu euh, buur kan mooy buur ak lan mooy lan moo indi buur bi waaw buur nag xale bu dëkk xale bu juddoo Pikine la mhm. yaroo euh, àggalee ndawam Sandaga ak caare ak caare mhm. mais buur bi mu ngi jógee ci Max Mbargane mhm. Max Mbargane xëy na ni ma daan soloo ci nekk xale mu ni ma buur géwal nga eh, doomi buur géwal nga su bul gëral boobu laaw mais nag géwal laa ci ne géwal laa ci baal. Mhm. turoo nag xëy na Max Mbargane ci moom la jóge mhm. ah, yàgg topp làmb tamit loolu daal moom mooy buur géwal yaakaar naa kenn dootu ko laajte. Mhm. topp làmb yàgg bëgg làmb ànd ki ah, ki promoteur ah, loolu daal mooy buur. mooy buur yàgg euh, mbapat topp ci làmb ji loolu moom mooy buur kenn dootu ko laajteeti mais buur suñ nee sa jaar-jaar ci làmb fan ak fan la. waa jaar-jaar mooy nekk naa président écurie Thiaroye sept ans mhm. président écurie Thiaroye bii nga nekk mhm. nekk naa ko juróom-ñaari mhm. ah, nekk naa président fan si club Bombardier national ay at ah, indi ay mbër ci làmb ji di ànd ak Baye Mandione di ko indi di ànd ak Bombardier di ko indi Bombardier bi muy jaay daan Tyson bi muy daan Tyson ñoo ànd maa ñawlu maa ñawlu blouson yi ci tëyër ànd fii laa ko ñëwee Thiaroye yi mu sol yooyu yëpp daal xam naa ne daal buur amul solo amul solo xëy na xale bu topp làmb la rek teel a topp làmb rek ba tey ma jaar ci Bécaye Mbaye mhm. ah jaar FM Sénégal mhm. jaar ci Bantamba mhm. def ay at yoo xamante ni Bécaye yi day dem tukki fu ko neex bàyyi maag Bantamba hmm? ma jóge nag foofu ma jóge FM Sénégal nag ah, jaar nag ci ci Lamine Thiam dogo euh, rajo RMD rajo municipal bu Dakar def fa stage Mm-hmm. yooyu yëpp jaar naa fa jaar 2STV. Mm-hmm. Bantamba téye naa ko juróom-ñaari at. loolu mm-hmm. fekkee nga ko. téye naa ko ba kaay tukki 6 mois bàyyi maag Bantamba te boobu Bantamba 2STV wax fa yombul. wax fa yombul wax fa yombul waaw bu am Kebs Thiam am Pape Cheikh Diallo am ñu bëree bëri. ndeysaan ma jaar fa. ndeysaan jëlee am jëlee fa nag xam-xam bu mag. est-ce que loolu moo la def tey pro. déedéet mën naa te nekk moom pro parce que man moo xam nga rek taalibi daal waaw ma yeewoo daal sant ni wér naa uh-huh. sant ni nekk naa taalibi Serigne Touba uh-huh. damay am mbégte kon yàlla ñu yàlla def pro kooku mooy buur ñu àndandoo woon nag nekk ci li nga xam ni moom mooy bekkaay ma def fa sama stage mu téye woon ma bekkaay jël ma teg ma ci loxoom ba tey jii ma mën a toog di wax ci làmb maa moom defandoo nañ stage ci rajo bekkaay buur nag léegi dañuy xuus jàll ci li nga xam ni mooy làmb ji saison bi nga gis làmb ji am pandémie téye woon ko mm-hmm. nga gis làmb ji léegi ni mu doxee mbër mbëri ñëw engage trois contrats ñaari contrat lan mooy sa lan mooy sa xalaat fin de carrière la wala dañu xalaat ni làmb ji peut-être pandémie mën na ñëwaat ñu ne nañu profité lan moo waral ñetti engagement yi nga xamante ni mbër yaa ngi koy jël di ko signé contrat ak promoteur yi. mais ñetti engagement yi su ma juumul. Mhm. Euh, Balla Gaye moo ko fi def. Mhm. am de. Mhm. Balla Gaye moo jël euh, Tapha moo jël non asafala Balla Gaye moo jël euh, moo jël Boy Niang mm-hmm. jël ki nga xamante ni moom mooy Bombardier mm-hmm. jël ki nga xamante ni moom mooy Gris Bordeaux mm-hmm. mais loolu làmb la yàgg naa am xëy na ñaari kon ñaari. est-ce que loolu lu ce que mbër bu daan dem bay nekk ci fin de carrière moo daan def loolu ñu ne bon départ la Balla Gaye des na mais ak mbër dañ koy bëri mbër dina toll foo xamante ni da bëri sa combat da ngay bëri say làmb mais doo xaar na fi am na ñoo xam ne dañuy liggéey mais ci liggéey bi ñuy liggéey dañ indi liggéey bu bari dañ koy jël da nga koy jël di ko liggéey téyeer yi da nga yàgg ñu jël stock boo xamante ni kenn xamul lu mu toll mais tey jii Balla Gaye bu dee day bëree nekk ci làmb di takk ngeem làmb tax koo jóg nga jox ko ay combat yu toll noonu daf koy jël bëri kar yaram man pour man daara nekku ci te it làmb moo ciy gagné parce que bu ñu doon xalaat ni ñu ngi nekkoon ci pandémie yaa ko wax sànq pandémie boobu ñu nekkoon téye làmb lu baree bari kenn mootoo dem kenn mootoo dikk ba loolu nag yàlla suñu boroom teggil ñu ko suñ ko teggilu sax ñu ni wàññil nañu ko ñun la combat gi nii combat bu et puis combat yëpp ko ren am na combat bu jëm déwén ah mais day bëri carrière carrière da koy bëri boo ci tolloo rek bëri ko toll ci def ko aayul dara nekk ci dara nekk waaw mu doon loo xamante ni buur moo ko wax toll ci def ko aayul kooku doomu Double Less ji moo koy def te damay faral di wax ni que làmbam dafa neex bari ma daan bëri ma daan ñibbi wala ma ba daan la mhm. ñibbi mhm. kooku doomu Double Less bi moo koy faral di def mais buur dañuy xuus jàll sa mhm. diggante ak bombardier parce que dañ ci am lu ñu ci wax yow sa diggante ak bombardier lan la xaritoo rek moo fa am xëy na nag di nga toll foo xamante ni dootoo mën a jige mbër. Mm-hmm. maa ngi ci télé. Mm-hmm. maa ngi ci télé xay na tam di liggéey ci wàllu làmb. Mm-hmm. Bombardier mu ngi ci yoonam di ko dox. man ak moom ku ne xam na ne ay bëkk dem ma demee këram. seeti ko ak DTV bi yaakaar naa gis nga loolu. gis naa daf maa dalal wiñeekuwaat ni ma man maa ko fekk. maa ko fekk yaakaar naa mu takk soxna mais daf maa indi fa mu takk soxnaam daral ma fa. fekk boobu kon Bombardier mi ngi takk. non dafa takkaat. boobu boobu mu ngi doon feetu. fa mu doon feetoo fa la ma dalale ñu waxtaan maak moom amuñu benn problème man ak moom. Mhm. Euh, làmb làmb la xëy na doon nañ ànd nag chaque jour bu amee combat ma dem Mbour bi ñuy daan Tyson bi mu daanee Tyson am naa une semaine Mbour mais di nga toll foo xamante ni mhm. dootoo mën a ànd ak mbër. Mhm. ba ma jël suma xarit la woon bu musaan ñëw caare fii ci Max Mbargaan boole ñu. ñuy nekk mais écriture bi ma doon nekk sax di ci jàpp jàppatuma ci. parce que di nga toll foo xamante ni liggéey bi sa liggéeyal sa bopp da lay gënal lépp. Mhm. waaw li nga xamante moom nga topp ci wàllu làmb. Mhm. nga topp ko moom mooy li gën. Mhm. waaw parce que liñ naan daal ñaari tànk mënut a war ñaari mbaam. loolu la mais Bombardier amuñu benn problème ñu ngi déggante. ah dèjà groupe groupe Leewtoo bi ma yor. gis naa ko ci moom mu ngi ci biir. ci biir parce que maa ngi ci ah, biir. ci biir waaw yow yaa ngi ci biir kon mm-hmm. amuñu benn problème. amu leen benn problème ah. ba tey rek buur dañuy xuus ñu ngi ci làmb ba tey ñu gis promoteur yi def ñaari pàcc. est-ce que mm. loolu day doxal làmb. non non non gënul ci làmb. Mm-hmm. promoteur yi boo leen compté woon li nekk ci làmb matul 30. Mm-hmm. boo néewee nag da ngay booloo. boo néewee da ngay booloo parce que am na kuréel gi Pape Fall jiite. am na kuréel gi nga xamante ni moom la jéey jiite. ah loolu lépp tamit nag xëy na ni ay nit bu ñu mënta ànd ñu tàqale koo day gën. Mm-hmm. mais man pour man li ma gis ñoom ñu booloo ci seen biir. Mm-hmm. moom mooy doon li nga xamante ni moom mooy li gën. Mm-hmm. parce que wax naa la ko sànq man la promoteur yi nekk ci làmb. soo leen compté woon matuñu trente. est-ce que mat na ko. lépp lépp lépp lépp su ma tee quarante. ci lay yem mais nag boo néewee. da ngay booloo booloo moom mooy sa moom mooy sa avantage moom mooy sa avantage mhm. muy que muy que ñuy jéey jiite mooy ñuy Pape Fall mais xëy na bis man yaakaar naa ni bis na ñëw ñoom ñëpp ñu booloo bis na ñëw ñu booloo yàlla na ko yàlla def ndax ñun ñu nekk ci làmb tey loolu la ñu bëgg ndax avancement làmb la ñu bëgg te loolu defe naa ci li avancé làmb la bokk mhm. mais bu dañuy jàllaat xuus ci làmb ba tey mhm. parce que dañu dëgmal bés boo xamante ni ku nekk nga koy préparé seen face à face kenn mënu ko nattable du ma la ko yeggaleel xam nga ban làmb la Tine Boy Niang combat jànq la. combat jànq boo ko déggee mooy ñaar ñu musta laal. combat jànq la may tegal sa baaraam foofu du nga dugg foofu sax mais damay ñëw ci Modou Lo Ama Baldé mais ñëw ci Tapha Tine ak euh, Boy Niang. waaw Tapha la. Mhm. ñoom ñaar mosuñoo laale. Mhm. te it Tapha dafa am combat. Mhm. parce que mbër mi nekk ci biir combat jëlaat beneen avance. non faalewul combat boobu. Hmm? ah déedéet. kon da bëgg a wax ni Boy Niang faalewul combat mais Balla Gaye ak dayo bi mu am ci làmb. nga dem jël beneen combat boole ko ci. est-ce que mbër yi bëgg xaalis bi. dañuy liggéey. du risque tam mbër nag lépp lu mu gëmul du ko jël. du de déedéet risque mooy la. risque kay téeméeri million ci kër wala cent cinquante million ci kër. Hmm. soo bëree am nga ndam soo bëriwul am nga ndam. Hmm. <laughs> loolu kay ndam am nga ko ba noppi. kër hmm. gu mu dugg dépense dafay ñàkk. te kër gu dépasse ñàkk ndam la ah <laughs> c'est que yooyu ay détails la. Mm-hmm. xale yi foog ñu bëri foog ñu jëlante seen biir. Mm-hmm. te làmb ji dafa ñàkk ay tanoor amatu ko. Mm-hmm. pour tanoor yi mën a nekk ci kaw ñaata ngay lim ñeent Balla Balla Gaye Modou Lo euh, nangam rek ngay lim. est-ce ko seen bopp parce que amoon na moment boo xam ne ñoom dañoo daan bëri ndoo ci seen kaw. ñoom ténor yi rek ñoo daan bëri ci seen waaw léegi nag gis nga ñu ngi may xale yi chance parce que damay dégg ñu naan mbër mu ndaw mbër mbër mu mag mbër mu ndaw moo koy moo koy folli waaw yàgg mbër mu ndaw yàgg naa fekki mbër mu mag. Mm-hmm. muy ci diggante Bombardier ak Tyson gis nga ko. Mm-hmm. bu mu ñëwee Balla Gaye ak euh, ni gis nga ko. Mm-hmm. mais nag mais da ngay ñëw nag ci euh, Boy Niang ak euh, Tapha Tine. combat boobu noo ko gisee boobu nee naa la combat boobu amateur dañ ko soxla. parce que combat jànq la musuñoo daje musuñoo laale. te kenn foogu koon mais gis nga calis bi mu ñëwee ci njàmbaaram ak ci gëm-gëmam bi mu ñëwee ci ma gis nga moom moom laa tuddee force tranquille moom du wax. li mu war a dëgmal rek lay dëgmal su ci paree pare na ci bu la waxee benn kàddu la am eh, jàmbaar la kon nag nañ xam ne xale yi itam ñu ngi bëree ki nga xamante ne ki leen tëgg ndaw la comme ñoom waaye jàmbaar la ci réew mi am lu bari loo xam ne dem téye ko ci réew mi parce que la mhm. heure bu ñu ko wooyee mu daw ñëw te eh, bëgg nañoo sax liggéey ak moom mhm. loolu yaakaar naa mhm. bis la boo xamante ni bis bu am solo la parce que booy ñaa bul fàtte ni Pikine lay jógee waa Pikine dar ko muy doomi dégal am fu mu bëgg a àgg am lu mu jóge woon Tapha Tine nga gis ko mu am lu mu jóge woon mhm. combat la boo xamante nii eh, man naa am xeex mën naa bëri mën naa jeexe nu ne kon loolu l'infatigable Thialis moo ko tëgg ñu ngi koy nuy de passage borom Leewtoo TV ba tey rek buur ne nga mën na am xeex mën na am caxabal mën na am dóor mu daanu mën na am tequm biir lépp mën na ci am bul fàtte ne Tafa a fekki Tafa fii mu nekk dafa bëgg a génn dafa bëgg a a dafa même bu déclenché dafa am fu mu war a mën a àgg te moom la séntu booy ñaar waa Pikine nekk ci wetam mu am ci lu mu jigee mook euh, la de guerre ñoom ñaar kenn sa morom non kenn du may kenn dara tal waaye may sa morom wala mu jël. Modou Lo loo ci Lo Ama Balde combat la boo xamante ni Sénégal ñoo ko soxla. Mhm. Sénégal ñoo ko soxla parce que combat la boo xamante ni Modou Lo gis nga ko Ama kii euh, Modou Lo dafa dugg Pikine. Mhm. am ki nga xamante ni moom mooy Eumeu Sène. Mhm. yàlla suñu borom may ko ndam ci kaw Eumeu Sène nga gis na mu ko daane. Ama Balde yooyu yëpp mu boole ko. Ama Balde bëgg roi des arènes ndax ku ne xam ne mbër mu mag. toujours yaa ko wax mbër mu ndaw day bëgg a ñëw folli ko pour toog ci place am. Mhm. ñuy bëri combat bu am importance ci Ama. Mhm. mais am ko ci carrière bu Modou Lo. Mhm. kon nag combat boo xamante ni ñoom ñaar kenn lu ci may moom dara te lu ci waay may sa morom mu jël. combat boo xamante ni Pikine nañ rawat nañu koy def ci arène nationale bi Ama Baldé bàyyee ko Pikine. arène bi nekk Pikine. Modou Lo wala jóge parcelle banlieue la rek daanaka dañoo seq stade bi combat boo xamante ni yaakaar naa ni ku yeex doo am place waaye ku yeex doo gis bëri ku yeex doo gis bëri xamal diyo waaw lu tax kenn du may sa morom dara kenn du may sa morom dara combat boo xam ne kenn du ko fooyal hmm? moom it combat jànq la mosuñu wa laale mos nañu bari mbapat waaw loolu xëy na mbapat la mbapat mais arène ñu ni Ama ñu ni Modou Lo daan ko ci liñ wax loolu seetaanu ma ko xam nga nag des fois dama bëgg wax ci loo xamante nii <laughs> seetaanu ma ko leeru ma waaw mais loo ci mën a dégg daal mooy combat la boo xamante ni mosuñoo laale ci arène bi ñoom ñaar war a jàkkaarloo mutloo yor li nga xamante ni moom mooy roi des arènes jële ko ci magam Eumeu Sène mm-hmm. te Eumeu Sène combat bi nga xamante ni moom la ko mutloo daan metti na metti na ko metti na Pikine. Mhm. Ama Baldé taxaw ci kanamu. cey boobu bis. cey boobu bis waaw. Euh, buur ba tey rek ñu ngi ci làmb ci làmb la ñuy waxtaane euh, su ma nee duo bi lan la lay fàttali FM Sénégal. waaw FM Sénégal maa yow 103 point la ñu <laughs> waxtaanee làmb. ndeysaan ah, war waxtaanee làmb. ndeysaan loolu lépp yow tam ngay jàmbaar. Mhm. jàmbaar nga jigéen joo xamante ni Fass nga dëkk Fass laa dëkk rek doy na làmb. Mhm. ku nekk xam na Fass nga fekkee fa ay ndaanaan yu bari nag. waaw ay Ibrahima Mhm. Alassane Diakhaté Sadio Camara Sadio Camara. Mhm. ñooñu xale yi xamul. Père Fall Père Fall. Mhm. ah waaw Mita. Ah, Mita Ndiaye Mita yàgg naa mbër nga dëkk Fass. am ñetti arène Emile Badiane Emile Badiane ah. ma xëri ma xëri Thiam waaw arène mais itam fii nga nekk am na arène arène Sambay Sall fi la nekk dëgg la fii la arène Sambay Sall nekk dëkk bi nga nekk fi la Papa Kane daan bàyyeekoo dëkk bi nga nekk nga waxal ma tuuti Thiaroye fi la bugg ma daan bàyyeekoo mhm. dëkk bi nga nekk fi la Thérèse Ndier daan bàyyeekoo yàlla ko yàlla xare àjjana mhm. dëkk bi nga nekk fi la Modou Diène daan bàyyeekoo champion yi bari fi lañ doon bàyyeekoo Khadim Ndiaye Khadim Ndiaye xale yi ngay wax mhm. rëg-rëg fi lay bàyyeekoo fii lay entraîné Mm-hmm. dëkk bii nga nekk dëkku làmb la. Mm-hmm. dëkk bii nga ñëw tey dëkk la boo xamante ni dëkku làmb la. dëkku kon tey ñu ngi nii tey Caaroy. dëkku làmb bàyyi ma fi lay bàyyeekoo. waaw dëkk dëkku ñëw Caaroy tey ci dëkk boo xamante ni ngemb nañ fi mbër mu jóge fi bëre ji arène ba tay ndam ngemb nañ fi mbër mu jóge fi dem euh, li nga xam ni mooy stade ba tàyyi kon tey ñu ngi caare fii dalal fi buur muy wax ci waxu làmb ba tey rek ñu ngi ci làmb ji papa kan papa kan papa kan bàyyil fii la daan bàyyeekoo daanu muy daan bàyyeekoo dem ñi mu doon ñu daan ñëpp dëkk bi la fii la bàyyeekoo doon lañu daanu mu duggaat caare yi ma nga daan génne cinéma caare yi bu daan bëri waaw ñu def xaadim njaay tam boucher de la reine dañ ko daan xaadim njaay gis nga ko fii la daan bàyyeekoo ndam lu mu mos a am fii la ko indi bàyyi mba ñoon itam daan bàyyi mba ñoon ndam lu mu mos a am fii la ko indi ndeysaan kon tey kon ñu ngi dëkku làmb tey fii ci caaro yi dalal fi buur géwal muy koo xamee ni kenn dootu ko laajte ci làmb mu tarbiyu làmb làmb nag macha allah ba egsi fii tey ji ñu dalal ko tey fekk si ko fii ci dëkkam mais ba tey buur dañuy waxtaan ci li nga xam ne mooy làmb bu ma ne lee làmb ban moo la gën a neex ak làmb ban nga xamante ne nii tey euh, reporté nga ko wala fekke nga ko mun mu neex la ba nga xamante ni doo ko fàtte ba ba ba ngay ba nga ba ngay bàyyi làmb. Tyson Balla Gaye. lu tax loolu non non Tyson Tyson euh, Yékini. lu tax parce que dañoo dem dajale leen ñaari yoon ñu xeex. Mhm. signature bi mënut àgg. deuxième signature bi ñu fukk ñoo xamante ñoom ñooy ñëw dix personnes pour poser leen question ci laa bokkoon. man ma demal FM Sénégal. yaakaar naa tam ma ñëw toog ci salle bi. kan ma doon ko présenté Malick Thiam man la njëkk a jox ma posé ko question Yaxe Diop Yékini. fekk tam boobu mu am ak sama problème sama patron ay problème. muy as bekaay. Mhm. mais dëkk tam man tam su ma ko posé question boobu foofu la problème bi réglé. Mhm. ma ne ko Yékini da nga gis da nga changé parce que combat bi da nga gis si comportement bi nga yor. Mhm. mun a ban comportement laa yor. ma ne ko ci kaa yow ak Bécaye mun ma non bu dee loolu maa koy jégalu yaakaar naa foofu la commencé. ndeysaan waaw mu nekk loo xam ne réewoon na ci man. Mhm. réewoon na ci man. Mhm. et puis tamit euh, daal combat la xam ne bu neexoon ci man. Mhm. parce que Bécaye dafa soloon benn yére ci plateau bi di ko reporté yaa koy yaa koy fàtte man mos a bu rafet na. moom soo paree yow laa koy may. mu pare dem këram suñu ko may ma ko. yaa bekkaay samedi ak la benn bés doxu ci. loolu réyoon na ci man daal réyoon na ci ngi naan Modou Lo Ama Baldé lamb la joo xamante ni kenn du ko kii mais. dimanche am na fi ñëw ci lamb jox ma kaamin yaa koy fàttaliku. ñoo toogoon mu sax la mm-hmm. jox ma dara mm-hmm. xëy suba teel tamit ci lamb ji tamit woo ma teral ma fekk am ñu woon mu leen ci camp caare. Mm-hmm. woo ne ma ma ne yaa ngi fan noonu maa ngi ci camp bi. loolu tam loolu tam réyoon na man mu ànd ak Thierno Gueye. Thierno Gueye vraiment loolu lépp doon loo xam daal daal mbégte la woon ci man parce que it bis la boo xam booy booy liggéey ci mbir ba dem ba ñu ràññee la ci mhm. loolu lépp mbégte la mbégte la kooku di buur nga dégg loolu mu wax noonu muy ay combat ñu ni woon nag Ama Baldé ak Modou Lo may wax ni dimanche bu ne am na fi mhm. dimanche bu ne am na fi takkusaan bu nekk am na fi kon dama gis signature bi mu am problème kon lan nga leen di dalal camp ñaari camp yi jot nañu wax ak ñoom waa des fois coowu làmb nag du waaw làmb xam nga ci coow lay commencé làmb coow ñoo ànd mais nag fi parce que tàkkusaan bu nekk am na fi. bul fàtte tàkkusaan bi nga waxoon sànq muy Balla Gaye ak Yaxya Jóob Yékini. benn tay seen Bombardier nga xam ne kenn doxatul. bitig tëj. lépp tëj. mais dayo combat bi nag moo toll noonu. mais nag bul fàtte lig lig day jaay combat de. yóbbu woon na Keeba Modou Balla Gaye ma kii dépes boobu na leen di Balla Gaye ak Balla Gaye xaj ñu mhm. mu yóbbu leen mu yóbbu leen fa coowaram mhm. waaw des fois day jaay làmbam nag mhm. parce que làmb moo toll lool mais nag bu mu am violence bu ñu yàqal kenn nañ xam ne ñaari mbër yi ñoom ñooy mayante xaalis Modou Lo moom mooy may Ama moom mooy may euh, Modou Lo mooy may Ama xaalis Ama may Modou xaalis ñaari champion lañ ñaari ndaanaan lañ ñaar lañu ñoo xamante ni daal nañ leen bàyyi ñoom ñaar rek ñu doxal nañ leen bàyyi ñoom ñaar ñu doxal chaque jour dama koy dégg ñuy wax naan ñi gunge mbër yi bëri na ci ñoo xamante ni ñooy yàqal mbëri yi kon nañuy dem fi ñu war a yem parce que damay wax ni que bis bu ñu yeggee ba face à face jàkkaarloo waxtaan ba nga xamante ni bés bi des na ñu koy préparé ay weer ay at ba bés bi des ay secondes ñoom ñaari ñooy des ci géew bi kon ku ci mën a ànd ak sa mbër jàppale ko te yàlla tax te bañ koo xeexal bañ ko indi problème loolu dina andil làmb li nga xamante ni mooy avancement parce que làmb chaque jour dañuy wax ni que làmb dafa bëri bruit ñu jógee ci stade bi nga xamante ni temps yëpp ñu ngi koy jooy ñu indil ñu ko ñu gis ñu ko def keroog loo ciy wax. waaw xale yi amuñu yar. Mhm. amuñu yar amuñu teggin. Mhm. parce que booy seet bisu boo xam ne 32 milliards. Mhm. ñu defal la ko. 32 milliards yooyu yooyu tey ji booy seet Senghor ñëw na wax ñu arène nationale amul. Abdoulaye Wade wax ñu arène nationale amul Abdou Diouf ñëw wax ñu arène nationale amul. ba tey Macky Sall ñëw sampal ñu biisu boo xamante ni 32 milliards fii ci Pikine. duñ ko fooyee. mais nag affaire bi yar bi yar bi ci kër gi la. ci kër yi la. liñ naan fa jikko àgg ab yar àgg fa. des fois da ngay gis xale yi ñu yor façon jikko boo xamante ni façon comportement boo xamante ni ci waajur yi nañ leen yar nañ defaraat jikko préparé leen mm-hmm. bisu boo xam ne 32 millions nga ñëw jàpp di dagg di sànni jàpp di dagg di sànni ja dagg di jàpp di sànni pour lan pour lan teew après billet bi nga fay 2000 francs wala dañ la ko may mm-hmm. amateur defu ko fan si club la mm-hmm. fan si club bi nag mooy mbër mi ci koñ bi lay dëkk ASC yi topp ko ASC yooyu ko topp nag billet yi tey jii politicien bi ñëw jënd billet bi xàmmewul ki mu war a jox bii xàmmewul ki am na ko xam dañ dañ ko war a fay mu nopp mhm. am na ko xam dañ ko war a fay di ko tëj mhm. warta génn warta def parce que bu génnee rek mhm. def li nga xamante ni moom mooy violence gis nga ko léegi ah loolu nag ci yari la ci waajuri la waajuri dañoo war a préparer seen i doom yar leen tàggat leen ba ñu xam àdduna ba foo dem mën faa nekk parce que boo yaroo foo dem nekk mais biisu boo xam ne 32 milliards la nga war koo xalaat mhm. soo koy yàq sa war nga cee xalaat Sénégal ak sa nawle yi nga ko te suñu sport la ñoo ko moom làmb la ñoo ko moom jéggaane wuñu ko buur tey ñu jot ci tànk jeex ñu ngi jëm ci tànk jeex buur la ngay tàggatoo bu ma la laajoon tey lu la neex ak lu la naqari ci làmb lan ngay wax li ma neex ci làmb mooy des fois nga gis ñoo xamante ñu wax te làmb dafa doon sport boo xamante ni suñu sport national mm-hmm. nañ ko defaraat mm-hmm. boole yar ak teggin ginnaaw dañ ñoo teg bët mm-hmm. gis nga sànq li fi amoon li amoon ci dëkk bi nga dégg ñu ni mbëri la mën leen man leen Max Mbargane wax na mën leen équipe euh, amul Casamance te waa Casamance ñu ngi génnoon di mars équipe amul Ndar te waa Ndar gi génnoon équipe amul Kaolack mais gis nga ba amee ci coole am musique daf ko jiñ daan ni mbëri ñoo wàccoon déggoon nga loolu coow loolu mais kon nag ñu la tegee bët da ngay xam sa bopp. dëgg la buñ la tegee bët. fekk sëd ñu sëd waaw da ngay rek la sam séddee gaalu xaj bu kenn fekk ngay lekk. Mhm. loolu daal laa xam ni daal bi kenn rafetlu ko kenn nag kenn kenn neexul kenn nañ ko defaraat te xam ne làmb ñu ñoo ko moom ñoo ko moomal suñu bopp jëngaade woon ko ci réew mi lañ ko fekk. looy wax ci Adja Nafi ak Leewtoo TV ak looy yow di la sant di la gërëm di la wax ni macha allah jigéen nag boo xamante ni jàmbaar la gis nga rajo yi nga jaar yëpp da ngaa ñëw wane sa bopp jaar nga réew mi FM am loo fa wane jaar nga FM Sénégal am loo fa wane ba tey macha allah loolu làmb la yi nga gis euh, la huit mai le huit huit mars bu jot yow ak Ndeye Ndiaye Tyson laay woo nga ñëw jàkkaarloo ma gis nga li tax woo ma la mooy li fi amoon dëgg la ah di ñaanaat loolu yow it ngay jàmbaar xam nga làmb bi ngay ñëw ci rajo bi di nekk ci man boobu xam nga làmb mm-hmm. parce que mënoo juddoo Fass yaroo Fass màggee Fass gis mbër yi gën xamoo làmb loolu daal laa amoon li ma def beneen itam di nuyu itam sa ñi nga àndal parce que liggéey dañ koy jox àq te bu ma ñëwee ba xool leen da ngay am sax yow mi toog da ngay xam ni ñii liggéey bi jox nañ ko fulla jox nañ ko fayda jox nañ ko gëdd waaw mais nag bitel bu nekk la mu def moom la sañ bay fay seen kilifa noonu la mel boo ko gisee rek respecté waaw nit nag bu da koy gis danga koy gis jox ko cër ca moom lay doon mais man nit ku ma jox cër la maa ngi lay suñu gisante bariwul dañuy déggante su ma ko wooyee mu wuyu ma mhm. su ma ko kiyee nangam su ma ko invité mu ñëw mu doon nit ku baax loolu sax xëy na seetuñu ko <laughs> kooku mooy Thialis bu coow li bëree du moom waaye bu jëf ji ma bëree moom la kooku mooy Thialis Faye borom Leewtoo TV ah di ko nuyu lu baree bare bari Euh, di wax ni que maa ngi nuy sama caméraman Bilal ak euh, ki nga xam ni moom mooy sama xarit euh, moo maane ak sama doom nga xamante ne ni moom l'infatigable laa ko tuddee moom tamit di leen ziyaare di leen wax ni que rek di leen jox dig daje ak beneen waxkatu làmb nga xamante ni duñu sonn di leen wëral waxkatu làmb yi ñu leen waxtaanal ci làmb duñ ci taay duñ ci sonn ak Leewtoo TV ci kaw ci kanam hôtel bi nuyu woo ko fi nga nekk. waa hôtel bi tam. waaw fii nag fa ku nekk xam nañu ku may seet fi may fekk. muy Estella Di Mare. Estella Di Mare italien la. ñoom ñu nekk su sumay xarit may liggéey ñoom sargal bi ñu may defal chaque année. gis nga ko ñoom Bekkaay ak ñoom ñëpp dañuy ñëw ah dañuy ñëw yéen sax xam naa ni bu ngeen bëggee noppalu. na ngeen jaar loolu maa koy gérer. <laughs> buur nee na képp ku nekk Leewtoo TV soo bëggee. après bu ñu jógee euh, fanati. waaw. bu nee na ñu ñëw tëdd fii noppalu ko fi climier ngi fii lépp ngi fii moo ñu ko defal merci à vous merci à Leewtoo TV merci ak ñi ma àndaloon ñëpp big up di leen sant di leen gërëm ak ñëpp ñuy bàyyi xel yaay bay awa kene